الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي بسم الله الرحمن الرحيم بك السلام عليكم ورحمة الله دو سوات 2253 tolloon ci weeru baraxlu waaye nag fi dëkk bi tollu tamit léeg am ay laaj yu ci ñëw ay leerlu ak yi <clears throat> laaj xalaat ndax ndaw lii nga xam ni moom nee na takk der la te léeg mu dégg ñuy sikk takk der yi te takk der dañ leen di sant mu ne naka laa war a def waaw takk der de mu war a def moom mooy jëfe ndigalu ki nga xam ne moo ko yilif ndax koor bi mu dugg lool la laaj waaw booy booy ràngaasewu di dugg ci armée bi walla nga nekk <clears throat> police walla nga nekk gendarme walla nga nekk douane ak yu mel noonu ak yu mel noonu dafa am ay tërëlin yoo xam ni yooya ca ngay tënku waaw boo nekkee ci formation bi boo nekkee bango ak foo mën a ne sart yaa fekk yow ca nga war a tënku yow yaa ñoo tànn koo dugg woowuñu la nga demal sa bopp ndax boo ko defee woon nag di nga ca am bàkkaar wala doo ko ci am loolu yàllaa xam waaye daal lépp loo xam day aar réew mi daal am réew mënta ñàkk yii ma wax nii ba atta duwaañ boobu sax dafa baax cim réew te bu fekkee ña ngi koy jaarale ci yoon wuñ ko war a jaarale ndax buñ ko deful réew ma duñ mën a du am stabilisé boo xam ni dina mën a eh, di dugal ak a génne ni ko bëggee ci li muy jële bitim réew ak li muy génne yóbbu bitim réew waaye bu bu bu duwaan amul lu mel noonu amul fu neex waay dugal ci biir réew mi ñi ne ci biir réew mi duñu am dara loo xam mën nañ koo jaay bu boobaa lu bon day dugg lu yomb day dugg lu baax day dugg lu jafe dugg lu lépp lépp lépp day dugg rek kon nag lu takk deet bi moom jëfandikoo ndigalul ka ko sant moom la war a def léegi nag mu des ci ka ko sant ndax lam ko sant ndax moom mooy tëriliin wu baax wa ndax moom lii la sarti réew ma wax wala moom bëgg-bëggu boppam rek la ko sant moom tàkkatel bi wàcc ci ci eh, ci kaw tali bi jàpp naa ni day am na yoo xam ni kilifa santaane wu ko waaye bu fekkee tàkkatel bi dafa sant mbóot wala mu sant jënkay bu ma ne am astuut fii mu am ko comme ni ko ñëpp di defee ñëpp mooy boo demee ci commerce bi am na ci boo demee ci ñun ñi sax ci sëriñ daara yi am na ci ñuy mbubboo daara te wax dëgg yàlla ah dañuy wut ci xale yi xaalis rek de waaw xaalis moo leen ci dugal de ci dugal waaye seen alxuraan sax setul setul mbokk yi gis ku alxuraan am setul mu ni lay jàngale alxuraan Sénégal rek la am bari fi lool moo tax yeneen koor yi ñoom it ah dinga ca fekk ñu leen rax waaw xam nga nag ngir orienté takk der bu ndaw bii ñuy waxal bu la joxee ndigal ne la demal défendre nangam demal def nangam dañ ciy ànd ak nite dañ ciy ànd ak nite lu mel ni barki dem waxal naa leen sama benn xarit imam fële ci mbuur euh, dañuy manifeste ñu di leen dàq am na xale bu dugg ci këram lu mat juróom dugg yor seen armée laaj yu ñu ana xale bi dugg ci néeg yi di ko seet dugg ci néegam yàq fa yàq gu rëy juróomi benn xale benn xale ah, kay duggal ni alxa génn leen xale bi dugg fi ñoo ko dàq ba mu dugg fii dinañ ko génn jox la nga dem loo doo fa yàq dara léeg-léeg nga def loo xam ne nag ki la digal moom digalu la loolu sa kilifa gi la digal digalu la loolu bu boobaa nag yow yoway ameel àq ka nga yàqal wax dëgg yàlla mën ngaa juum jaawale jàpp ku ci bokkul yooyu yëpp mën nañ ko toléré léeg-léeg waaye am na haine boo xam ne bu nekkee ci takk der bi wala far gum far ci ñaari camp yi jàkkaarloo day feeñ ci ay jëfam léeg-léeg waaw muy mbir mu daal mbir mu naqare naqare naqare naqare eh, waxtaane la wax dëgg yàlla ndax eh, tërëliinu doomu aadama la day safaanoo ak tërëliinu sunu boroom subhaanahu wa ci lu ñu war a dunde ci kaw suuf lu ñu war a amee eh, état boo xam ni day tëdd tëdd ci ak maandu loxol suñu boroom moo ko moo ko moo ko taw fekkee nag état la boo xam ni nit a tëggal boppam yëlëb ci loxol yàlla boobu état pour mu am stable day jafe lool day jafe day ñi biir nag nekk ci euh, administration bi ci wàll gu ju mën a nekk ah, ku cay jéem a tënku nag ci sa diine léeg-léeg nga am jafe-jafe léegi la am jafe-jafe ak sa bopp waaw ñu ngi gis ñoo xam ne dañuy dem ba mujj sax dañuy bëgg a bàyyi li ñu nekkoon dem dem ak seen bopp bari na ci ñu ci bari bari dañuy mujj bàyyi dem ak seen bopp waaw kon yàlla yàlla yokk jàmm ci senegal léegi ñu tiit lool ba yàgg lañ doon tiit yàlla wis ca ndox mu tane mu tane tuuti doonte amagul liñ bëgg nag waaye senegal moom euh, ku ciy waxati rek mën ngaa limité say wax ndax euh, toujours soppiku dalay bett soppiku dalay bett ndax mbir mi danga koo yorul te bokkoo ca coow la waaw bokk ci coow la nag am na lu ko gën sax mooy xam li xew comme xamoo li xew nag waaye da bokk ci ñi coow rek moo tax léeg-léeg dangay ngay rek euh, sa bopp da ngay sa bopp waaw euh, la ci tegu kon ci weer wi ñu nekk te muy weer wu ñuy waajale koor waajal koor la ci jiitu mooy fay bor yi fay lu bor yi xam ni yaa ngi weer woo xam ni na ci woor ay fan gis nga naafile ni mu amee solo ci bu dee julli nga xam ni yow mal xiyaam bu ñu xoolee julli juróom yi dara manqué ci saa borom ni ah xool leen jàmm boobu ndax amoon nay naafila waay ay naafila naafila nag du weeru koor dong de naafila du weeru koor ko jako koor it noonu la mel da ndax mën naa am sa koor yi farate ramadaan yii am na jamono mësoor nga te wóoroo wala koor yi nga woor xamoo baax na wala baaxul kon di naafila ci yeneen weer yi rawatina nag weer wi ñu génn weer wi ñu nekk di kañ sama ay jàmbaar yoo xam naa leen donte kenn kii sax dañ koo téye làq ko jant bi waaye ba ni mu nekk ci kaso gi day jéem a woor ñetti weer yi muy rajab ak shaban ak ramadan bu dul jamono yi nga xam ni eh, dañ koo bàyyi muy liggéey sof dimanche bis bu mu liggéeyul da koy woor ci ci weer yooyu am nañu am courage mbokk yi nga dëkke loolu saa yu rajab ñëwee nga woor woor saabaan woor weeru koor waaw question de habitude la rek bakkan bu moom loo ko bëgg a tamal da ko koy teg gëm ñu ma mën naa nekk boo ci duggee xam ne mën naa nekk mi ngi noonu yàlla mayu ñëpp nag ndax am na ñoo xam ni weeru koor wi daal dañoo xamul lu ñuy def moom lu mu gën a gàtt gënal leen koor daa metti ñoom lool lool te pourtant du seen bëgg lekk sax du ñu foyee sax woor beneen bis bu dul weeru koor xalaatuñ ko benn bis rek ñoom xalaatuñ ko sama benn bàyyi lay wax ni ma daal euh, mag mi daal man lu ma gunge lu ma gàttangu waaw gan gu mag gi daal moom laa ko respecté ndeysaan bu koor ñëwee nga xam ni kii kat koor ñëwati na am ñoo xam ne seen yaram day mel ni mu ragal koor am ñoo xam nag moom euh, doo ko yëg sax moom doo yëg ni doo xam ne sax woor nañu doo ko xàmmee ak bu ñu wóorul ñaar yëpp benn bu ci nekk am na waaw kon koor niñ koy waajale bokk na ca euh, xam ni euh, ngëneel a ngi nii muy weer woo xam ni alislaam woor gu bari gim ci doon def lim doon wax ci weer wi saxaaba yi ñoom it gis nga anas nee na eh, saxaaba yi rasulullah sallallahu alayhi wasallam isaa nasru ila hilaali saabana akbu ala masaaxifi yaqru yaqra'uunaha muslimuuna zakata amwaalihum waaw nee bu weeru koor buñ musa teru moom Chaabaan nee na bu tero yéet ubbi nañu kàmbil di ko jàng kon nañu yokk si njàngum alxuraan jullit yi daal di génne seen alal daal di génn asaka ndax lan xam nga boo boo def génn asaka ci biir weer wii nu nekk ngir jullit bi koy jox am lu muy woore gis nga ko ngir ñu mën caa ñu dëgëral ñi nga xam ne ñoo ñàkk ak ñoo amul dara ndax ñoom it ñu mën a ñu mën a woor ay jullit lañu woor dañ leen a war te amuñu lu ñuy doge ngay dàkk weeru koor bu jub see nga génne sa asaka nga jox ko ko mu dem waajal ci jënd la yoo xam ne yii dina ci man di am lu mu doge waaw su ko defee nee na eh, kilifa yi yére administration bi daal di xool eh, ñu ne ci kaso gi ah, nu ñu leen di nu ñu leen di dimbilee àtte leen libéré leen eh, ak jox leen loo xam ne ñoom dinañ ko mën a jëfandikoo waaw daal waajal daal nee na weeru koor bu baax a baax noonu lañ koy def ci seen alal ak ci yépp gis nga kon kon am na ñoo xam ne ñoom dañuy bàyyi ba weeru koor ñu su ko génn asaka waaye waajale ko waa moom nga génne ko benn mbokk ni waaw léegi moom su ko bëggee def nu muy def ndax moom mi ngi laa génn asakaam ci buñ tabaskee ba noppi ana en tout cas ngiru mal Maalik di dagan na nga nga war a génne asaka mu des ñaari weer nga nga génne ko dàq weer woowu nga xam ni kon bu ñëw tee rek ci ngay génne liñ la mayul kay mooy nga war a génne nga ni kon naa xaar ba weer wii ñëw ndax mu jige koor gi ma soog a génne déedéet sa doucement bu matee mat na génneel génneel ca saasa waaw rékkile bi nag lañ la ni bu dee ci ngirum Maalik gis naa fu ñu wax ni dagal na donte ñaari weer la nga reculer ko waaye kenn du génne asaka ci weeru datub janvier datub mars datub février datub avril déedéet datub rajab datub saaban datub ramadan datub shawal sil xiada sil xijja muharram safar rabiul awal rabiul sani jimaadul awal jimaadul sani douze mois yi ci génn asaka mbokk yi ah nga ne man de xawma ko woon ñu ne kon jàppal jàppal ni ah, dat bii ñu toll tey ci weeru tubaab mooy def sàngam ci weeru wolof nga bind ko génn ci asaka kon bu déwénee duutoo génn asaka ci dat bii ñu toll ci weeru février tey jii waaye kon dat biñ toll ci weeru chaban moom nga génn asaka saabaan benn panu altine la woon altine ba tey jii di eh, samedi loolu eh, juróom benn fan lay doon ah, nga xool ko lim tombeel ci eh, weeru tubaab nga daal ni kon juróom benn fan bu déwénee ci lay génne au lieu date bi ci mois de février ci weeru tubaab du ma ko génne noonu lañ koy defee rek yow mën naa wëlbati lool jigéen ji muuru ah kañ la ci kër gaañu nga ni mi ngi gaañu le 16 février le 16 février boobu gaawal xool ko ci euh, ban app la dajeel ci weeru rajab nga ne ah mi ngi weeru rajab ci misaal ñaar fukki fan ya daseel ñaar fukki fan ya rajab compte ci sa quatre mois dix jours ki fase muy te muy muy muy muy muy yiddaw moom foofu la ko war a dàkk yàlla danoo sàkk waaye danoo digal nuy natt sunu jaamu yàlla ci weer wi nga xëy mooy weeru lislaam waaye nañ ko xam bu baax a baax a baax baax parce que koor gi kenn du ko dàkk da ngay gis ko ni bi sàngam lañuy ñuy um koor la cinq nangam la ñuy um koor yow loo ci xam loo ci xam ku la ni weer wi vingt-neuf la wala trente donte vingt-neuf moo ci ëpp wante ñu bari dañoo calculer ni weer moom vingt neuf la dañ ko dul gis rek waaye ginnaaw yonent bi moom da daa xool rek nañ nañu xool ba léegi rek ala kulli haal ginnaaw mën nañoo xool daal nañu xool ba léegi rek donte détails yu bari na ci nag kon saa ba noonu lañ doon def ci pour di ko waajal waaye waaye sant jëng di ko waajale jàmbat tiit lool mel ni ba mooy bëgg ñëw ah, lu mën a fóot sa bakkaar mooy bëgg ñëw ñaan yàlla mu fekk la fi ndax kat bakkaar yi nga góoban ci at mi ndax yàlla boole la ci ñi xëy da leen di goreel ñu am ak jot ci sawara du ñu si yàlla boole leen ñu doon ci waa aljana ala kulli ndax dañuy wax ni Chaban mu ni juróomi araf la Chine ak ayin ak yaa ak alif ak nun Chine gi mu ne Sharaf ah gis nga ko Chine gi rek. saraf la honneur la jullit bi ayn gi min al ulwi ayn gi al ulwi mooy ak kawe lay jural nit ki wal baa min al bara min al min baa gi ci li ñuy wax al birru muy mbaax lay jural nit ki alif min al ulfa gis nga mooy nepp muy nel nuun gi min nuur mi ngi jóge ci li ñuy wax an nuur muy leer kon lii al ataaya ay may la yu ne ci biir euh, Chaban jaam bi man koo profité ngir man caa euh, bokk ci ñi nga xëy dañu am gañaay yu toll noonu mbokk yi kon nañ bari luñuy ñuy julli ci yonent bi nag ci weer wii bu baax ndax lan sa bakkaar yu baree baree bari day far tuyaaba yu baree bari astaxfirullaa yi na bari lool boo mënewul woor it dee dee ci lele di joxe aw ñam saraxe sa alal am naa wax ci lëb nañu rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا